mbokki téléspectateurs yi ñuy faral di seetaan ci Leral TV ak yéen ñi ñuy suivre ci leral point net ñu ngi fii ba boo xam ne kenn du ko présenté ti ci région de Thiès bu ngeen gisee sama ginnaaw da ngeen jàpp ne ñu ni ñu ngi ci école 2 bu Kër Moussa école su ngeen ko gisee ngeen xam ne nii lu bëri manqué na ci donc moo tax tey ñu ñëw nar a waxtaan ak li nga xam ne moo di population bi ñeel wàllu wile njàng élèves yi naka lay demee naka noonu itam naka la ñuy def ba defar lu ni mel ba élèves yi mën am tey ji benn espace de vie boo xam ne tey jii dina mën a satisfaire seeni bopp. voilà école 2 nekk benn euh, école boo xamante ni on l'a eu suite à une marche boo xamante ni def nañ ko fii en 2016 2016 euh, ba léegi comme ni ngeen gisee école bi amul benn changement bu fi am euh, ñu ngi jànkoonteeg ay jafe-jafe yu méttee méttee métti déficit de salle de classe d'abord boo dikkee tamit gis ngeen état terrain bi kenn terrassé wu ko mu nekk ay situation yu métti problème mu. toilette da ko amoon. Mhm. ndaw di fi jàng mhm. ngeen fekk ko nii mhm. foog naa lii neex naa wax si këm parce que yéen ci teg seen bët wax dëgg yàlla du école boo xam ni eh, bu ñu defar dara la. mais comme ni mu ko waxee waa Kër Moussa xale yi surtout ànd defar Kër Moussa xaaruñu kenn ci dara seen doole seen bët seen loxo ñu ngi ci dëkk bi waaye ñu ngi ci école bi ndax seen xeexa tax ak seen taxawaay tax ñu am école bi ndax yàgg nañ koo bëgg mais musum waaye seen taxawaay moo tax école bi benn nit ku baax ku dëkk Kër Moussa mm-hmm. maye espace bi ñu fexe ba defar fi école bi Euh, exactement comme que vous êtes confronté à des situations yi nga xam ne moo des situations quelconques tey jii lan ngeen di ci li nga xam ne moo di état du Sénégal euh, à travers ses autorités yi nga xam ne mooy mooy les autorités communales wala municipales. voilà ñun nag dañu xaarul kenn parce que comme ni ma la ko waxee sànq je suis le secrétaire général de And Defar Kër Moussa And Defar Kër Moussa boo xoolee sax li gën a sabab. existence am mooy revendication pour l'implantation d'une deuxième école ici à Kër mmh. euh, ba tax na loolu doon na loo xamante ni moo suscité ñu créer le mouvement ànd defar Kër Moussa pour man di taxaw ci problème yu mel nii mhm. euh, di ci jàmmaarloog autorités yi nga xamante ñoo nekk fii ñun xaaruñu benn autorité ku dikk da ñu ciy fekk parce que ñu ngi ci tout tout parce que boo xoolee classe yi ñu fiy def ak euh, toilettes yi ñu fii c' est le de ànd defar Kër Moussa. balaa loolu yow en tant que président des parents d' élèves euh, lan ngeen jot defandi wala tey jii est bind ngeen ki nga xam ne moo di seen autorité est bind ngeen leen naka noonu itam est état du Sénégal mu ngi jot li bind nañ ko mboolem loo xam ni am na ci école bi que oto euh, école bi amul ndox amul courant amul dara douche bële euh, comme ni mu ko waxee waa Ecobank ñoo nu ko may mais bu dul loolu tool bii ñoo nuy may ndox ñoom tamit vraiment ñu kii def seen participation yoo am dool yu que moom it day fay ndox waaye mi ñuy may ndox di ko may xale yi ñu koy jëfandikoo ci lee tamit tool la ñu ngi ñuy may ndox di ko jox xale yi waaye daal amul dara loo xamante ni sentir nañ ko ci état mu def ko ci ci école bi waaye nag wax dëgg yàlla jàngale jàng euh, jàngalekat yi fi nekk ay jàmbaar lañu mboolem résultat boo xam ne école bu baax am na ko ñu ngi koy def ndax fii ren ji am nañu cent pour cent yoo xamante ni ñi doon def ak examen ñëpp am Euh, ban message ngay lancé la population euh, de Kër Moussa par rapport bi nga xam ne moo di lutte bi ni mel. voilà la population de Kër Moussa tout d' abord dañ leen di remercier parce que tey jii xam nañ statut ànd defar Kër Moussa. Mhm. parce que tey jii ñun yemuñu ci éducation kese. Mhm. parce que boo xoolee assainissement parfois mbedd yi bu dëngee mhm. euh, les populations duñu xalaat maire duñu xalaat. kenn ku dul ànd defar Kër Moussa bu nu gisee benn jafe-jafe ay por poto électrique bu daanu wala boo xamante ni fil bu dagg la duñ ci xalaat kenn ku dul defar ànd defar Kër Moussa ànd defar Kër Moussa doon na benn euh, euh, association boo xamante ni les populations l'ont adopté donc euh, ñun dañ leen di remercier di leen woowaat ñu gën a adhéré ci ànd defar Kër Moussa jàppale ñu ci liggéey bi parce que suñu bopp la ñuy liggéeyal askan wi la ñuy liggéeyal population bi la ñuy liggéeyal gox bi la ñuy liggéeyal mhm. su école bi maanaam buñ ko gënoon defar ñu gën leen a may li a xam ne moo di électricité ndox ak yu ni mel maanaam kon espérer ngeen que mun ngeen am yeneen résultat yoo xam ne weesu na foofu. waaw loolu kay moom. Mhm. kon alhamdulilah rabbil alamin li wér daal te wóor mooy. Mhm. ah école bi daal gis nga amul mur. Mhm. ay xeere fi nekk te ay xale yu ndaw fi jàng gis nga bu suba jotoon nga ñëw fi fekk xale yi nii eh, ñuy doog a ñëw sa yaram day daw xale yu ndaw ñuy yéeg ci kaw xeer yi di jàll di dem ñu ngi tàllal ñëpp loxo waaye nag ñu ngi sant population Kër Moussa waaye ñu ngi sant ànd defar Kër Moussa ndax génn wuñ ci seen loxo ñu ngi ciy def lu ñu mën ñu ngi ciy wax lu ñu mën ak it benn partenaire bu ñu fi indi boo xam ne mu ngi tudd jong dëgg-dëgg vraiment gis nga classe ba léegi gis nga benn classe bi cent vingt euh, élèves ñoo fi nekk mhm. benn classe donc kon xam nga loolu daw na yaram donc ki leen di jàngal nan lay def ba leen di jàngal mhm. boo xëysee da ngay nan lay def ba xam-xam dugg ci seen bopp da lay jaaxal mhm. donc kon wax dëgg yàlla mhm. ku ñu ci dimbali ñu jël ak nooñu ak nuñ ci mën a dimbalee rek sàkk nañ ci am dimbal waaye daal gisuñ ko mel ndimbal moom. jërëjëf ñàkkum ndox courant. loolu la askanu Kër Moussa di joytu fii ci école 2 ginnaaw bi ñu leen dégloo waxtaan nañoo ak ñoom ci li nga xam ne moo di jafe-jafe yi école bi di jànkonteel ñàkkum toilette naka itam ñoom ñu ngi koy ñaan état du Sénégal gis nga seen doole la ñuy boole ay association yu ni mel ngir li nga xam ne moo di école bi donc état Sénégal na gëstu ñi nga xam ne ñu ngi au fin fond donc du Sénégal bien vrai que mooy xëy na doon deme dem doon na jafe pour ñenn ñi ñu mën a accéder ci li nga xam ne moo di yenn construction yi mais naka naka noonu itam ñu ngi xool li nga xam ne moo di seen doole ñu boole boole ko avec des associations ngir liggéey école 2 naam seen i autorité ges wuñu leen waaye élèves yi nga xam ne ñoo jàngee fii ci école 2 nekk ay tuutànk ñoom ñooy désherber li nga xam ne moo di école bi mu nekk en tout cas lu daw yaram naka noonu itam souligner leen li nga xam ne moo di déficit de professeur donc état bi na leen gëstu par rapport ak jafe-jafe yu ni mel ñu ngi leen di jox dig daje beneen reportage ci beneen dëkk